asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu daari isbu tarxiya ci njiital sëriñ Youssou Diop jëwriñ ji moo sàkkoon ab délégation bu dikkoon ziyaare cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalif général des mu doonoon alxemes ñeenti fan ci weeru tabaski atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ñaar ci gàddaay gi dëppoo fukki fan ak juróom ci weeru juillet atum 2021 fii ci Daaru Minam délégation yi nag ñi ngi bàyyi ko ci direction général bu Touba ak ci lenn ci ay jëwriñ ci ndakaaru ñu dikk nag teew ànd ak kuréelu xaside bi lu tollook waxtu ak tuuti kuréel bi yëkkati nañ fa njàng mu am solo di kuréel bu fullawu nag mbooloo mi takk lool jege daanaka juróom fukk ci ay jàngkat yoo xamante ni diirub li ñuy jàng fàttali nañu ay daaju cosaan lépp amee fii ci mbaar mi nga xamante ni moo nekk ci biir kër Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké ci teewaayam. ginnaaw bi mu teewloo njàng mi ba mu àggal am na kàddu yoo xamante ni yëkkati nañ ko fa. ci tawfiix yi defal te jataay bii bokk ci mu wax ne nag ñëwoon na fi nga jox ko ndigal ngir ñu ànd ñun ñëpp Hizbut Tarqiyyah di lenn nee na loolee nag bi ñu fi jógee ba bisub tey yëg na ci ay tawféex ak ndimbalal Serigne Touba ak gatandoom ndax bokki taalibe yu baax yi nga xam ni ñoom nga ko booleel ñu ànd ak ñoom bi ñu ñëwee dañ koo xamal ne ko ñun dey yaay suñu jëwriñ ndax Cheikh Mouhamadou Mountakha yow la joxoñ te fu ab joxoñam jëm foofu la suñu bët di xool kon na jiital nañ la ci suñu kanam fas yéene ànd ak yow ni ñu ko sëñ bi digalee moom itam mu wax ni waxoon na la ne la dinañu dem indi la ndam waaye nee na liggéey boobu de su doon fukk la bokki taalibe yu baax yi yombalal nañ ko ko ndax gis na ci ñoom ak bëgg sëñ Tuubaa akuk dëggu ak xool yu laab ak yitte ak pas-pas ak fas yéene teg seen bakkan ci ndigal lii nga joxe ñu xool nu muy mën a amee te seeratuñ ci dara la leen waxoon ne ku ci ne nu bërën bi tege ci sëñ Tuubaa gis nañu def nañ ko nee na boobaak léegi nag taxawuñu lépp luy firndeel ni ñu ngi ci bàyyiwuñ ko muy njàngum xaside yi di kuréel yi ña ngay daje ca daara isbu tarxiya ca daaru xuddoos ak ca daara isbu tarxiya ci yoonu beleel di daje ci daara isbu tarxiya ci Sacré Cœur ak di daje ci daara isbu tarxiya ci Mariste ba démb ci waxtu wi mbooleem soxna yi nga xam ni ñoo bokk ci isbu tarxiya te nekk ci ndakaaru waxtu wi ña nga ca daara ja daje ñoom itam ngir fas yéene xam ne ndigal li nga joxe ci lañu fas yéene wii kon nag nee na ay taw féex la yoo xam ne Serigne Touba defal nañu ko mu di ko mu di ko seere kàddu yooyu rek laa ko doon ubbite waaw jërëjëf Mbacke xanaa kay li ma ci dolli du bari ndax gàttanduk seexul xaddim boo ko amee euh, ba yëg ne defaloo ko lu tax mu defal la li mu la defal yow ak cant rek nga dese te cant gi xool nañu ne sant sëriñ bi sax lott nañ ci kon lenn rek moo des mooy jël sunu lépp joyal ko ci liggéey sëñ Touba loolu nag Mbàkke ñu ngi lay sant bu wér ndax yombalal nga ko ni ko sëñ Lamine waxee waxaaleel na ma waxaaleel na sama mbokk yi yëpp nga xam ne ñook ñoom léegi genn kàddu rek la amuñu ñaari kàddu genn jublu it lañ am mooy loo joxoñ ndax yaa ngi suñu biir ni nga nekke suñu biir kon yaa ñu jiite man nag bi ñu joxee ndigal li keroog bi ma fi jógee damaa waxoon ne la ah noo ngi dem waaye ñu ngi lay indi ndam waaye dara leeru ma ci woon ak bëgg akuk façon akuk dogu nag laa jóge daal ne jaral na ma jiital gi nga xamante ne yaa ko tànnoon jiital ma su ma doxee gis ne bu ñu soppee mooy gën a gaaw àggoon na ci man foo xamante ne ngir sa ndigal li am ma dikk wax la ne la nangam yaakaar naa bu ñu ko defoon mooy gën a gaaw ndax man toppee moom laa gën a jàng moom laa gën a mokkal ci lii nga xamante ne aw sas la bu tege ci sama kaw waaye nag ñoom ñii ñëpp nag mbàkke ñoom ñii ñëpp yombalal nañ ma liggéey bi ndax gis naa ci ñoom bis bu set ma yëkk ci dolli ko noo xamante ne dama ne ñii kon mbàkke foo leen làqoon ba xaw ma woon ne fii ak ñii ni ñu baaxee ak ni ñu mel foo leen làqoon yaaxal na ma ñi ma àndal tamit di waa Hizbut Tarqiyyah kenn ci ñoom koo xamee ne jafeel na liggéey ci ñi fekk si amul kon lépp benn baat la dafa am nag loo xamante ne danga ma koo dimbalee ma bëgg koo laabire képp koo xam ne noo bokk yaakaar sëñ Tuubaa dama daan dégg waxi sëñ Abdou Lahad joo xamante ne mosuma koo mën a firi daan naa ko wax waxandoog dong yëpp waaye léegi mën naa koo firi sëñ Abdou Lahad dafay dafa daan wax ne benn murit bu bëgg di mam amul kenn ku ci ne sëriñ tubaa wan na la ci sa bopp wan la ci moom jëm jëm sa jëmmam moom Seexul Xadiim wan la ci sa sa borom loo xamante ne bëggoo di kenn. loolu ba mu ko waxee man xaw ma lu muy firi ndax xepp sama bopp ci wàllu pësteef waaye bi ma gisee ni nga jëlee dongo yi kenn ku ci ne la sëñ Tuubaa def ci moom bu muuru woon ba kenn gisatu ko ba nit ñi di gis leneen ci moom yow génnewaat nga loolee sëñ Tuubaa def ci moom réyal ko màggal ko àggale ko foo xamante ne kenn dootul gisati lu dul loolu loolu nag kenn dongo bu ne jox nga ko ak xam noo xamante ne te ak jooju dara lu la sëñ Tuubaa def ci moom nun nag ñu war ci jàngee kenn ku ci ne xam ne la tax Serigne Touba tànn sa morom boole la ci njaboot gi lu mu def ci yow la kon nañ xam ne lu am la loo xam ne Serigne Touba ko ci def Serigne Touba lu mu xas def rek valeur la lu rëy la lu gànjaru la loo xamante ne na ku ne xàmmee loolu ci sa morom ngir ànd bi mën a yomb waaye booy xool ci sa morom loo xam ne da nga yaakaar ne ak matadi la lu ko ëpp mu ngi ci yow te suñu borom moo la suturaal ba kenn gisu ko kon loolu daal Mbàkke dama ko jàngee ci saw doxin ba xam ne fi ñu toll nii dama bëgg ñun ñëpp nag ñu xam ne ñetti ñetti taxawaay moo taxaw suñu kanam. ginnaaw liggéey rek a nekk suñu kanam liggéey bi moom li ci jiitu mooy ñoo ngi ci weeru tabaski xasida gi ñu jàng bu buñ la ko nuyoo ah, faskurullaa fi ayaamin maadudaat suñ la ko nuyoo xam nga ne matale na sëkk fan yi nga xamante ne màggal suñu borom ak jéggalu ko ak ak di ko takbiiral ak di ko di ko di ko sant loolu moom mooy li ci gën a li suñu borom gën a taamu kon suñ jotaay bi bu ñu ko nangulee na la ko fay yow lépp yaa ñu ko defal ñaareel bi itam bu buñ ci jógee incha allah ci bis yi nga xam ne moo nekk suñu kanam weeru xaram am na liggéey yu ñu daan ànd ak yow Mbacke waxtaan nañ ceeg suñu bokk yii yëpp muy benn nga xam ne liggéeyu njaareem bi ak liggéeyu nee na muharam incha allah nañ ko fas yéene ànd ak yow. màggal gi nga xam ne moo taxaw suñu kanam nag tàmbali nañ koo xool ci anam yëpp li ciy firnde mooy tey jii dinaa la nuyoo xamal la ne la Hizbut Tarqiyyah gépp nuyoo nañ la tey jii juróomi téeméer xar juróomi téeméer xar yoo xam ne xari màggal la ma nga fa yeewee soo ko soxlaa suba wala nga soxla ko waxtu wu la soob rek waaye xamal ne xari màggal la loolu kon tamit ñu ngi koy sante te it duñ ci yam ndax kenn ku ne loo am sëñ Tuubaa moom kenn moomu dara ñun xam nañ ne sëñ bi dañuy sagal rek waaye lépp moo ñu ko defal kon loolu tamit ci wàccaay wi la bokk la ca des mooy Cheikh Saliou Mbacké mu tedd ma daf ñu daan jàngal ne saa buy wootee màggal gi da ci daan tegaale gàmmu gi njàng njàng moom nag daa mokk kon tàmbali nañoo xoolit gàmmu gi kon loolu lépp ñoo ngi koy ànd fas di ñaan nag suñu borom yàggal la fi. defal la ak wér. ndax tey jii euh, lu Seydina Omar defaloon ci julli ñi rek defal nga ñu lu ko raw. busra li ahli sama wal kullu yaxtaaru. toog sa toogaay bii li tax sax ñu gën a bëgg dongo yi ñu xam ne bu ñu yamoon fële bañ a si joxe gu ma loxo de Mbàkke tey jii li ma gën a loon ñun ñi ñëpp sax ñu leb joxe loxo bi te ñaan suñu borom fayee ñu ko yaddullaha fawqa aydihim ñu jël lii addiye yaa ngi nii lii lu ñuy nuyoo la sëñ Moustahine téyel ñu ko waaw ma dama dama dama doon sàkku rek euh, euh, <laughs> lépp na moom man tey jii moom aal ji ma am mooy damaa gis ne euh, joxe loxo yeeg yëpp baax na waaye sëñ bi nañu nangul rek la mu nanguloon waa biir mooy ay fawqa aydihim inna lazina yu bàyyoxoon ak inna maa yu bàyyoxoon allah yadullaa fawqa aydihim loolu nag nañu ko nangul nangul ko suñuy njaboot nangul ko suñuy doom nangul ko murit yëpp moom taxawaay boobu la taxaw tey jii kon loolu damay ñaan nañu bañ koo teg coono kenn ku ne bëgg nuyoo kenn ku ne bëgg wax soxla yaral xafaaya bi ay nal xal bi zahiratan kama yushaahidu ma tatal ak i naat xam na li ñu ëmb xam na li ñu wax xam na li ñu waxul nanu ko defal jërëjëf Mbacke ginnaaw kàddu Serigne Youssou yooyu Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacke yëkkati na fa ay kàddu lépp di kaddu yi cant ak soññee jim ci mbooloo mi ci ñu gën a góor sëñ bi nee na mbégum tayam mii tay de nee na mënatul am mu ni toll. nee na alhamdulilahi rabbil alamin li ma ci gis moo di moom daa amul dara soppikuwul. moom de nee na li mu ci gis daal mooy daa daa xam ne rek dara soppikuwul. ndax li ne ci xol yi moom dara dara wàññikuwu ci. ndax li ne ci xol yi moom nee na dara wàññikuwu ci. dara soppikuwul kon. nee na dara soppikuwul kon. li am nag moo di. nee na li am nag moo di. seytaane da dul toqi du tayyi. seytaane da dul toqi du tayyi. day lii lii nu weesu ba ci jataay bii. nee lii nu weesu ba ci jataay bii. dañ ko dañ ci doon wane tas tasu yaakaaram. dañ ci doon wane yaakaaram ju tas moom seytaane moom moom moom rek feeñ moom rek ci feeñ. nee na la demee. nee na la demee. <laughs> jëf. nee na ngeen jëf. <laughs> ngeen di di rek ngeen am. neen tawfeex rek la ñu am. sëñ bi moo am lu mu bëggal boppam. sëriñ bi moo am lu mu bëggal boppam. moo am aw doxin wu mu bëggal boppam. moo am aw doxin wu bëggal boppam. jëme jëme ko ci boromam. jëme ko ci boromam. te suñ te lu mu bëgg boromam defal ko te lu mu bëgg boromam defal ko ko. loolu mooy seen tawféex jii loolu mooy suñ tawféex gii. day lenn cee yëm yëm ñàkk. day day lenn cee yëm ñàkk. borom defal ko ci yéen ñii. borom defal ko ko ci ñun ñii. nee na tawféex dong la ñu am. seen yoon na suñu yoon nekku ci suñu bopp. ngeen gën a xam loolu nag bu baax. ngeen gën a xam loolu nag bu baax. nii nii nii ngeen mel rek. nee na nii nu mel rek. fi ngeen toll rek. nii nu toll rek. ni ngeen ko jubloo rek. nii nu ko jubloo rek. ni ngeen ko yéenee. nii ñu ko yéenee. ni ngeen ni ngeen ni ngeen ko ni ngeen ni ngeen pëstee foo. nii nu pëstee foo. ni ngeen jubloo. nii nu jubloo. lépp. lépp. day na na na na gën a nekk rek xastu na gën a nekk xastu wajhillahi. loolu rek mooy li ci li ci li ci am solo. nee na loolu rek mooy li ci am solo. yéen loolu moom maanaam loolu ci seen warteef. loolu moo ciy sunu warteef. tawfeex ji am na ba noppi. ne ndax tawfeex ji am na ba noppi. fokk ngeen yëg li ngeen am. waaye faw nu yëg li nu am. faw ngeen yëg ko. nu yëg ko. da ko yëg seen xel. dañ ko yëg ci sunum xel. jiitu da ngeen ko yëg war ko yëg ci sunuy xol. ngeen ko yëg seen i jëmm. dinañ ko yëg ci sunuy jëmm. loolu. yéen mooy seen doxin. na loolu mooy sunu doxin. fokk ngeen fokk nu dox. bu ngeen yëgee bu ngeen të bu bu nu yëgee ak bu nu yëgut. loolu moom mooy tawfeex yi sëriñ bi ji ji li mooy li mu bëggal boppam digganteem ak boromam. nee na loolu mooy tawfeex ji sëriñ bi bëggal boppam digganteem ak boromam. te lu mu bëgg boromam def ko. te lu bëgg boromam def ko. lenn ci seen doxin wi. lenn ci suñu doxin wii day lenn ci lu mu mënta ñàkk. day lenn ci li mu mënta ñàkk. moo tax mu am suñu borom defal ko ko bëggee. moo tax mu am suñu borom defal ko ko ni ko bëggee. ngeen yëg loolu. neen am nañ lu rëy. lu jafe lu jafe. lu xawut a mën a am. lu xawut a mën a am sax. loolu la. lu xawut a mën a am. lu xawut mën a am. kon ginnaaw am ngeen ko nag. ginnaaw am nañ ko nag. yoon waa ngoog. dama ko waxee woon rek. neen na mënu ko waxee woon rek. ku ne kenn ku ne ci nun nëbbëtam rek tegu ci sëriñ bi. nëbbëtam rek tege ci sëriñ bi. bu bi bu mu fi gis ci diggante bi leneen. noonu dong la nag. noonu dong la nag. ah lu diis la. lu diis la. lu rëy la. lu rëy la. jafe la lu jafe la. waaye yàlla suñu borom lu mu yombal mu yomb. waaye yàlla suñu borom lu mu yombal mu yomb. yombal ko. kon yombal ko. moo tax ngeen sóobu sóobu yoon wii ngeen aw. moo tax ñu sóobu yoon wii nu aw. di ko di ko di ko jéem doxee nii ñu koy doxee. di ko jéem a doxee nii ñu koy doxee. waaye nag na jëm kanam na jëm kanam rek. nee na waaye nag na jëm kanam rek. kanam rek jërëjëf kanam rek. bu ci dara soppeeku. amul taxaw amul taxaw. amul geesoo amul geesoo. waaye loolu lépp nag. waaye loolu lépp nag. day dellu si sago. day dellu si sago. foog ngeen am sago foog ñu am sago. ndax ñëpp ngeen àndal. ndax ñëpp ngeen ndax ñëpp lañ àndal gaa yàllaa ngi ci. gaa yàllaa ngi ci. ngi ci. lu nekk ngi ci. lu nekk ngi ñu farloo ngi ci. ñu sàgg na ngi ci. lépp ngi ci biir lépp ci biir. te ngeen dox. te faw nu dox. te gaa yi ne a ngi digg gaa yi. te nu ngi ci digg gaa yi. te digg digg digg gàllankoor yi. te digg gàllankoor yi. kon faw ñu dox. nañ xam bopp suñu bopp. <laughs> jërëjëf. lu yàlla yombal mu yomb waaye doxinu yombul. lu yàlla yombal mu yomb waaye doxinu yombul. waaye waaye nun nag lu nu weesu rek nañ ko xeeb ci liñ jëm noonu rek noonu rek la demee jërëjëf Mbacke waaw noo gunu am noo gunu nooyi rek nee na noo gunu nooyi rek li ñuy ñaan li ñuy ñaan moom suñu borom defal nu ca tawféexi sëriñ bi defal nu ca tawféexi sëriñ bi ba ñu gën a mën a dund rek sëriñ bi. waaw jërëjëf Mbacke <laughs> jërëjëf Mbacke jërëjëf waaw lépp mat na Mbacke billaahi waaw jërëjëf Mbacke jërëjëf. kon xam leen xam suñu bopp rek. te wéy rek nag noonu dong la demee jërëjëf jëf jërëjëf Mbacke waaw. waaw <laughs> <laughs> waaw nee na ñu mos rek waaw bu ñu ko toppan jeex kon fu waay ne. na teewlu kuréel bi al yumnu wal yusru yomb googu mu wax suñ borom rek ko yor nañ ñaane al yumnu wal yusru sëriñ bi tàllal ñaanal ñu ñëpp ñu jóg dem soxla su indi woon na xam ne mu ngi ci biir lii mu wax waaw amul sikk nee amul sikk مالك المكرم المتهدي على سيد القرآن بالندي نجا بما يديم خير سددي على سيد القرآن من ددي نجا بما يديم خير سددي على سيد القرآن من ددي نجا بما يديم خير سددي على سيد القرآن من ددي نجا بما يديم خير tàllal la amiin ginnaaw ay ñaanam cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké jox na mbooloo mi ay barkeelu yu yaatu di ay bernde yoo xamante ni yokk na lool mbégte mi mbooloo mépp nag ànd àggandoo fii ci daari Hizbut Tarqiyyah ji nekk ci daaru xuddus saafonte fa wane fa seen mbégte yëkkati fa ay kàddu soññi lépp jëm ci fas yéene jaar ci ndigal li nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké joxe na ko di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér